kaawu Cheikh Baara Ndiaye ba ñuy waxtaan mhm. euh, moom dafa mel ni mu ngi woon ci biir kaso bi mhm. mais defe naa ne laataa loolu bàyyi nañ ko fi ba def na quelque sortie mhm. euh, tàmbaliwaat na émission am tàmbaliwaat na yeneen ak yeneen mais kaawu Cheikh Baara Ndiaye laataa ñuy dugg ci beneen ka mais exactement moom bul laal leneen nga laal Cheikh Baara kese kese kese mhm. ban gis-gis nga am ci Cheikh Baara mi ne woon ci kaso mhm. ndax am na loo ci waxoon mhm. am na la ma ci waxoon euh, am na loo ma ci waxoon tamit xam naa ñetti wax lay doon <laughs> mais kaawam moom fu mu toll nii ban jàngat nga ci am. xam nga Cheikh Baara Ndiaye man dama koo bëgg. xamatuma bëgg ko. dafa di borom baatin. yàlla rek laa koy seedeel. dafa di borom baatin. mas naa ko dem seeti. Hmm. lan moo ma yóbbu woon ci moom estomac. Hmm. ba ma demee dama ko doon testé. Hmm. dama ñëw ne ko man dama am estomac. te effectivement dama am estomac. ma dégg muy publicité garabu estomac am ma am estomac bu ma sonal. yàlla def may dem si moom. bi may dem si moom dafa am benn kéemaan bu ma suñu borom wan. avant may yegg këram. lu mat lu mat quinze mètres avant may yegg këram. dafa am lu ma suñu borom wan. yaa ngi dégg. Mm-hmm. bi ma ñëwee ma nuyu ko ma dugg nuyu ko bi ma ñaa ñëw fekk mi ngi toog ci benn chaise bu mel ni comme chaise bu nga toog chaise ma toog ko. Mm-hmm. ma ma war a dugg dugg daal di koy nuyu ne ko man di dama am estomac bu ma sonal yàlla rek laa koy mm-hmm. wu ma ko. ma ne ko dama am bu ma sonal. ma ne ko dama bëggoon garab bi. mu ne ma temps la ma ne ko yoruma lool temps laa yor est-ce que naa li ma laaj. mais dama ko ne yoruma lool temps laa yor. mu ne ma amul problème demal boo demee xale yu góor jox la ko. ma mhm. génn xale yu góor jox ma ko ma ñëw utiliser ko mhm. waaw maa ngi sant yàlla tane naa maa ngi sant yàlla daal mhm. ñaareel ba Cheikh Baara Ndiaye damay wax si yow tuuti ma jambal dafa dafa génn wax wax boo xam ni wax bu yéeme la ndax wax bi lu tax muy yéeme dafa tudd waa kër sëñ Touba. te sëñ Touba kat liñ ko xamee yàlla yonent bi loolu dañu xamee suñu maam borom Touba yàlla la woote yonent bi la woote mhm. xamee wuñ sëñ Touba beneen diine léegi suñu mënee taxaw ne leen Sonko su faloo diine bi ne Touba dinañ ko dina ko dindi def ci beneen diine te Sonko diine bi mu am mooy diine bi sëñ Touba am mhm. yàlla yonent bi lay woote mhm. sëñ tuubaa yàlla yonent bi lay woote kon ma jambal moom léegi boo analyser ay mbiram kan la yet Hmm. loolu rek laa laaj kon léegi dafa bëgg ne tuubaa moom kon diine ba ba ñuy woote moom Touba woote hmm. gis nga te pare fi ma ko fi ma xaw a contré Cheikh Bara Ndiaye tuuti gis nga euh, sëñ Bass Abdou Khader. Hmm. ak lu mën a am rek doomu aadama la su fekkee nit dafa taxaw jox jox teg tuuma bu rëy boobu am na ko ko mën a waxal nest mu toog ci wetam di wax kooku di ko jottal ne ma ne diw waxuma ko lii waxuma ko lii setal boppam. Mm-hmm. mais soo fekkee da nga ne pat. kon ma jambal kon waa Touba vraiment li mu wax wax ju la nag. Mm-hmm. nañ seggaat wax ji xoolaat ko analyser ko yow ba ma la woowee téléphone wax la wax ji. Mm-hmm. da ngaa da am noo réalisé. am loo ma wax ne ma yaa Adama daanu naa. parce que foogee woon di nga ko di ko xalaatee nii te noonu la demee. Touba benn diine moo fa nekk. yàlla la ñuy woote yonent bi la ñuy woote yàlla la gëm yonent bi la ñu gëm ak seen maam borom Touba. Mm-hmm. kon su taxawee ne leen sonko su yéegee di maas ci sonko gis nga sonko. Mm-hmm. ñiy maas ci moom dafa bari nag. Mm-hmm. maas ci sonko maanaam. waaw maas ci moom di xalaat bu yéegee seen ëllëg. mais gis nga ma xamaleen sonko <laughs> li may wér di ci moom dafa bari. gis nga sonko bu yéegoon du def kenn dara. Sonko su yéegoon. lu mhm. def picc bu gën a tuuti wala melentaan buy dox du la laal. Mhm. man maa la wax lii. Mhm. nañu bàyyi doomu jàmbur ji te ñi ko contre dafa bari. Sonko ñi ko contre moo bari. te ñi ko contre ñëpp boo xoolee dañu am dara ci Sénégal. Hmm. mooy li ma la wax rek gis nga ndeyu mbili gi ñuy gi ñuy naan moom mooy def moom moo def nii moo mel nii. moom melul noonu. ñi ko wër gis nga ñi wëroon Ablaye Wade bi muy bëgg a bi nguuram di bëgg a jeex. ñi mhm. ko waxuma sax avant nguur bi di jeex. ñi waroon mhm. Ablaye Wade nekk ak moom. Mhm. noonu la mel Macky Sall mel moment bii. Macky Sall sax moo ëpp noon ko Sonko. ñi koy ñi gasal kàmb. billaahi wallaahi wa taala ñi koy gasal kàmb ñoo ëpp Sonko ka ñuy gasal Sonko kàmb. Sonko nag moom gasal kàmb bi moom dafa wër dafa wër ndombo. parce que ñi ñi nga xam ni yàlla dafa def tey seen fal ci barki Sonko la jógee. Mm. tey seen falu. Mm. mi ngi mel ni Sonko dafa fekkoon ay doomu aadama yu nekkoon. foofu sax bëgg naa fa ñu ñëw fa mais ñu yem ci kaawu euh, Cheikh baara parce que la nga fa wax dafa intéressant li dox ci digganteem surtout Cheikh ma jàmbal ak kilifa googule di Serigne Bass. Euh, defe naa ne nit ñi sax. peut-être coow li nëpp nëppal nañ ko. mais réaliser guñu. Mhm. carrément loolu gravité am. waruñu ko nëpp nëppal nag. lu mhm. garaaw la. gis nga loolu waa ji wax noonu lu garaaw a garaaw la te te sëñ Bass Abdou Khader warul noppiwaale loolu. Mhm. xam nga tax waru ko noppiwaale. Mhm. gis nga diine benn diine lañu am. Mhm. ñun ñun jullit yi. yàlla lañu gëm. ak yonent bi mhm. sëñ Tuubaa ba mu ñëwee yàlla la ñu wan wan ñu yonent bi mhm. yaa ngi de mhm. Sonko jullit la amul beneen diine diineem yàlla la ak yonent bi man de loolu laa xam li ma ko gisee mais Sonko dañ doon wax salafiste la waxaabis waaw moom mooy li ma la wax rek mooy li ma la wax léegi yow gëmul yooyu waaw yow léegi soo demee ba jël waa Tuubaa ne leen Sonko su faloo nii ak nii ba pare ñu jël naan so ma jàmbal ba mu koy wax yàgg na Mhm. avant Macky Sall di falu la mhm. loolu Cheikh Bara Ndiaye na wax waxam loolu loolu man d'accord ma loolu mhm. parce que bi mu ko waxee nee na 2019 élection 2019 yi mu ne Sonko xaw ma am na temps bii di ñëw 2024 bu ñëwee dina amaat temps bu jëlee réew mi di yéen di nangam ak naam diine bi nekk fi dina ko xeex xam nga gis nga gis nga nañu bàyyi kilifa diine yi ak waa Touba ku jóg rek dal ci waa Touba ku jóg dal feneen Mm-hmm. gis nga su ngeen di politique politique leen seen politique bu bopp. Mm-hmm. mais diine gi nañ ko bàyyi teg ko na leen parce que diine gi diine yàlla la. mais kaaw Madiambal lan ah. moo waral parce que ma Madiambal heure bu àddoo. Mm-hmm. defe naa ne ci lu dul arrangé Sonko lay doon bind na livre boo xamante ne. Euh, livre bi diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko nam fa demee loolu nga xamante ne defe naa ne fii ba ay siècle livre ba dina des. gis nga bi muy wax doguma la. bi muy wax ci Sonko si Cheikh Abdou Ba Bass Abdou Khadre mhm. bi muy wax ci mbir moom mhm. mi ngi jël photo Sonko benn ngi si ginnaaw mhm. benn mi ngi si wetam bu Adji Sarr Adji Sarr Sonko Sonko mi ngi si ginnaaw mooy livre bi gis nga gis nga gis nga nañuy nañuy xool seen tra yu bàmmeel hmm. gis nga doomu aadama mission dafa gàtt soo dundee juróom fukki at sa benn tànk mi ngi àddina sa benn tànk mi ngi àllaaxira te suñ la sangee ba defar la say mbokku deret say mbokku meen ñoo lay dugal jébbal la suñu borom say mbokki àdduna di la xaar ci buntu bàmmeel yi mm-hmm. soo génnee ñoom ñëpp dañuy tëdd suñu génnee ñoom ñëpp dañuy tëddiwaat seen kër mm-hmm. yow sa jëf moo lay gungee sa biir bàmmeel dañuy sóor bis boobu mm-hmm. dañuy sóor bis boobu lu jara sóor la ndax suñu demee jëf ji nga jëf ci àdduna moom moo lay wéttali yow say mbokku deret ñooy ànd ak yow ba sa biir paax ñu dugal la say mbokki àdduna di la xaar soo génnee ñoom ñëpp suñu génnee ñoom ñëpp ñu ànd dem ñibbi seen kër. Mm-hmm. bu ñu ñibbee ñoom ñëpp dañuy tëdd seen kër. Mm-hmm. yow nag bu dee sa jëf ju baax mooy ànd ak yow sa biir bàmmeel ba keroog yomal xayaam. Mm-hmm. bu dee sa jëf ju bon mooy ànd ak yow ba keroog ngay dekki. dañuy sóor bis boobu. te dañu bàyyi Sonko ku jóg rek wax ci moom lu bon. mais lan mooy waral moom mu wax ci moom lu rëy lu toll noonu wala mu wax ci euh, waa Touba. lu rëy lu toll noonu te mujjul fenn. kenn waxu ko dara. looloo ma metti kenn te bu nekkoon keneen dinañ la génnal jéggalu. wala génnal nangam wala defal vidéo jéggalu wala léegi nag léegi nag looloo ñuul ci soow mi. Hmm. looloo tax waa tuubaa si boppam sëñ Bass Abdou Khader ak lu mu nekk kilifa kilifa. Hmm. am na ko ko mën a waxal. Hmm. parce que gis nga wax ji dafa rëy. man boog man boog. man boog xam naa ni wax ci dafa rëy. parce que lu toll ni njabootu sëñ Touba. nga taxaw ne leen Sonko su faloo. beneen diine la fi indi ban diine la Sonko di indi beneen. Hmm. dina dindi fi seen diine ju fi nekk am waxul loolu hmm. man de loolu laa dégg hmm. wala waxul loolu kon nañu bàyyi Sonko toujours dama leen koy wax bàyyi leen Sonko bàyyi leen Sonko ndax eh, yàlla ku ne dafa am lu mu la may bu kenn xeebal nit lu mu ko yàlla may Sonko nañ ko bàyyi te vito billaay wallaay su ma nee nañu bàyyi Sonko danañu bàyyi Sonko su ma mënoon waataat ci kaamil mhm. dinaa tegaat fii kaamil sama loxo mais su ma la waateel ci barki salaatul faati rek tama tama teg sama loxo ci dañu mhm. bàyyi Sonko mu ñibbi ci ay mbokkam te yàlla rek tax te ñu bàyyi prisonniers yi jigéen ñi ñu jéggal leen ñu baal leen ku ne dem ñibbi ci say njaboot mhm. nga toog ak sa njaboot ah, parce que ñu jigéen ñi bari na soxna Ami Dia mu ngi foofu faala fleur mu ngi foofu ñeneen ak ñeneen ci ñu nekk ci jigéen looloo tax wax wax nañ leen bàyyi rek Sonko euh, Vito ñu baal leen parce que àddina lépp day jeex euh, nguur goo gis dafay jeex te nguur suñu borom rek moo dul jeex tey boo xoolee ana Senghor ana Abdou Diouf ana Ablaye Wade ñoom ñëpp seen nguur jeex na. gis nga may ñaan président Macky Sall jenn wàll ji la topp yëpp seen intérêt moo tax ñu topp la. Hmm. seen intérêt moo tax ñu topp président Macky sàll hmm. parce que ñi ngi ragal ëllëg Macky sàll nguuram daanu ñuy am ay tolof tolof. Hmm. may ñaan nag Macky sàll nga jéggal ñëpp te yàlla rek tax. nga baal ñëpp te yàlla tax. ngir jëmi rasulullaay nga mhm. baal ñëpp mais mais Bara Ndiaye ci lu gaaw rek moom fa mu nekkoon ba mu duggee biir kaso ak boo koy naatable ak bi mu génnee dafa hmm. waaw gis nga tànk. Ah, ak Cheikh Baara jàngat yi muy def ak. laa lay wax. Hmm. moom laa lay wax rek gis nga man li ma waxoon ci Baara Ndiaye ne moog Sonko benn nit bu taxaw la ba tey du ma ci jógee. Hmm. gis nga am na tamit lu la waxaat. Hmm. loo xam ne du lu ñuy wax fii télé bi. gis nga tànk day banku wala mu tàlle. gis nga tey munoo ne benn borom kër bu ne ci koñ bi jàppale dugal la ci biir këram njabootam yëpp jàppale dóor la ba nga màndi nga génn naan bitoo moo baax kee baax borom kër gi baaxul. est-ce que dégg nga li ma la wax. Mm-hmm. dégg li ma la wax bu baax. waaw mi ngi mel ni boroom kër jàpp la. Mm-hmm. dugal la si kër gi ñoom ñëpp wulli la dóor la dóor a dóor a dóor bay bëgg ba ngay bëgg a dee. Mm-hmm. nga génn bi nga génnee ñëw naa di ci seppi juróom wala juróom-benn naan ñii ñoo baax ñii ñoo baax. gis nga tànk day banku wala mu tàlleeku man loolu rek laa ñaan jaay. tànk dafay banku wala mu tàlleeku. mais tey su fekkee da ngaa dugg kaso génn ñëw di am ñooy gërëm ci ay plateau ah, na waar de doy na waar Hmm. waaw doy na waar trop. banque wala mu tàllee ko moom sa veut dire. waaw oh, Vito. Hmm. Vito bàyyi ma. Vito li may wax nii yaa ma ko gën a xam. Hmm. te dama bëgg nga bàyyi ma man yu bari dama la koy wax man ak yow yàlla. xam naa li ma la wax rek. tànk day banque wala mu tàllee ko rek loolu la moom dégg la. ku ku baax la. mais li ma la wax rek tànk day banque wala mu tàllee ko. waaw. ayca kon ñu dem ci. Euh,